Monsieur les représentant des associations de consommateurs, Messieurs les membres du Comité national de dialogue avec la clientèle, chers membres du CNDC, Mesdames, Messieurs les amis de la presse, vous avez pu constater l'intervention de plusieurs autorités de l'État à la suite des mesures gouvernementales portant sur la baisse de la subvention des prix de l'énergie au Sénégal. Et répondre aux questions sur ces dernières en mettant l'accent sur leur signification, leurs motifs et leur mode d'application. Je m'inscris entièrement dans cette logique en tant que directeur général de la Société nationale en charge justement du service public de l'électricité. Et en tant que tel, je voudrais apporter pour le sous-secteur de l'électricité des éléments complémentaires sur ces mesures dans l'optique de contribuer à leur meilleure compréhension par nos clients, notre raison d'être. qui sont concernés au premier chef donc par les Sénégalais. La présentation d'aujourd'hui va s'articuler autour de quatre points phares tels que définis dans ce sommaire ci-après. Ce choix se justifie par notre volonté de mettre l'accent sur toutes les déclinaisons de ces mesures sur la facture de l'électricité et de jeter toute la lumière sur leur impact auprès du consommateur. L'objectif est donc essentiellement de contribuer à la communication gouvernementale avec comme point de mire le volet concernant l'électricité pour les domestiques et les industriels. Comme vous le savez, ces mesures gouvernementales portant sur la réorientation de la subvention des, produits, des prix de l'énergie concerne au premier chef les clients de Sénélec. Je rappelle que ces derniers sont répartis en deux grandes catégories, les clients domestiques et les clients industriels. Pour ce qui concerne les clients domestiques, il faut noter qu'ils souscrivent dans leur intégralité à la basse tension. Vous remarquerez que pour ne pas dire la totalité des clients de Sénélec provient du segment domestique basse tension. 2 409 902 clients, soit 99,40% de cette clientèle projetée en 2023. représentant un chiffre d'affaires de 362 milliards, soit 54 Il est important que vous reteniez bien ce chiffre. 2 409 902 clients, soit 99 de la clientèle. Ceci a son importance dans la perspective de la mise en œuvre de ces mesures de réajustement de la subvention et de son corollaire, à savoir les modifications de la grille tarifaire de l'électricité. En revanche, chez les clients industriels, il y a ceux qui sont abonnés à la basse tension, donc moins de 1%, mais contribuant à hauteur de 66 milliards, soit environ 10% du chiffre d'affaires. D'autres à la moyenne tension 3641 191 milliards 28 pour cent du chiffre d'affaires et une faible minorité soit 10 clients à la haute tension donc moins de 1 pour 1000 des clients de Senelec sont des clients haute tension mais ils contribuent à hauteur de 52 milliards soit environ 8 pour cent du chiffre d'affaires Au sein du segment, au sein du segment des clients domestiques, les 2 409 000 clients, il faut préciser que nous avons quatre sous-catégories. La première tranche, considérée comme la tranche sociale, dont la consommation ne dépasse pas 150 kWh par mois et qui sont au nombre de 1 159 146 clients, et qui constitue environ 61% de la clientèle domestique, ont une facture mensuelle qui, tourne, qui est inférieure ou égale à 15 000 francs CFA. Mesdames et messieurs, c'est important. Et si vous me permettez, ma baamtu ko ci olof mu wër mooy clientèle domestique yi nga xam ne seen consommation yegg dépassé wul 150 kilowattheure par mois toll nañ ci benn million ak téeméeri junneeg juróom fukk ak juróom-ñeent ak téeméer ak juróom ak ñeent fukk ak juróom benn client yoo xam ne seen facture dépassé wul cent cinquante kilowattheure par mois loolu nag buñ ko xaymaa muy téeméer bu nekk nekk nañ presque juróom-benn fukk ak benn yi il y a une catégorie suivante qui a une consommation mensuelle comprise entre 150 et 250 kilowattheures. Celle-ci représente environ 25% de la clientèle totale. Ensuite vient, vient une troisième catégorie qui, a cette, qui, cette fois, a une consommation moyenne comprise entre 250 et 700 kWh, représentant environ 14% des clients domestiques de Sénélec. Et enfin, une dernière catégorie qui, contrairement au précédent, souscrit à la moindre puissance et à une consommation mensuelle avoisinant les 1000 kWh. Elle représente pour sa part une portion de la clientèle domestique de Sénélec, exactement 0,4%. Et la clientèle domestique de la première tranche, 1 159 146 clients soit 61 pour cent de la clientèle domestique et environ 48 pour cent de la clientèle globale de Senelec. Pour vous permettre d'apprécier visuellement la différence schématisée entre les clients domestiques de la première tranche, aussi dénommée tranche sociale, par opposition aux autres, je de, de jeter un regard sur les représentations ci-devant. Elles reproduisent la projection des appareils électriques correspondant à la consommation mensuelle. Pour les clients domestiques de la première tranche, nous avons environ 5 lampes, un frigo de 100 litres, un ventilateur une radio et une télévision en couleur. Comme vous le voyez, l'électricité est utilisée ici pour couvrir les besoins nécessaires, voire impératifs, dans une société qui aspire à l'émergence. La lumière pour l'éducation des enfants, un ventilateur pour se, pour se rafraîchir en période de canicule, un frigo pour les besoins vitaux de l'alimentation, entre autres. Pour les clients domestiques de la, de la deuxième tranche, nous pouvons noter sept points lumineux. Un frigo de 200 litres, trois ventilateurs, une télévision en couleur, une radio et une chaîne à musique. Pour les clients domestiques de la troisième tranche, nous pouvons noter 10 points lumineux, deux ventilateurs, un frigo de 400 litres, un ordinateur, un fer à repasser, deux splits de 1,5 voire 2,5 chevaux. Pour cette dernière catégorie, vous pouvez remarquer qu'au-delà de la couverture des besoins nécessaires, il y a un souci de confort très élevé qui explique la présence de cette multitude d'appareils qui consomment beaucoup d'électricité. Le gouvernement a toujours fait le choix de soutenir le développement du secteur en mettant le consommateur au centre de ses préoccupations, surtout les plus vulnérables. Il a ainsi mis en place un dispositif pour les protéger en supportant une partie de leur facture d'électricité par le biais d'une subvention. En 2022, l'État du Sénégal a versé 267 de francs CFA pour soutenir les clients de Sénélec. Ces 267 milliards correspondent à un coût, permettent à Sénélec de retrouver le coût réel de service qui est de 154,99 francs. Et comment se traduit cette subvention Ça veut dire sur le kilowattheure, le consommateur a payé 101,06 francs CFA. Et l'État supportant pour sa part 43,93 francs CFA pour permettre à Sénélec de retrouver son revenu qui est déterminé régulièrement par le régulateur. C'est un mécanisme de solidarité sociale qui constitue une rareté dans le continent et même à travers le monde, les pays les plus riches y compris. Parce que cette subvention est uniforme pour toute catégorie de clients, qu'ils soient de tranche sociale ou bien qu'ils soient un gros consommateur comme ceux de la troisième tranche. C'est ce qui a étonné ce résident étranger d'un grand pays occidental, bénéficiaire de cette subvention, alors qu'il estime que ce n'est pas à lui que ça devait être destiné, car ce n'est pas le cas dans son propre pays. sa situation n'est certainement pas une exception. Dans la continuité de l'option gouvernementale de mettre les couches vulnérables de la population au cœur de sa politique sociale, la réorientation de la subvention de l'électricité se devait de mieux refléter cette préoccupation centrale. Comme vous le voyez sur ce schéma, le, le client de la tranche sociale la plus vulnérable, le plus vulnérable et le plus nécessiteux, lorsqu'il paye 15 000 francs sur sa facture, l'État l'a subventionné de 4 260 francs. Par contre, si nous prenons le gros consommateur dont la facture mensuelle est de 600 000 francs CFA. Pour la même période de consommateur, l'État lui a versé une subvention de 172 200 francs CFA. Donc le plus nécessiteux 4 260 francs et le plus gros consommateur 172 200. Vous comprenez l'émotion de ce résident étranger qui bénéficiaient d'une subvention mensuelle qui fait plus de 40 fois celle reçue par le client de la tranche sociale, la plus vulnérable et la plus nécessiteuse. Avec le nouveau tarif de l'électricité, on peut dire qu'un rééquilibrage était nécessaire, comme le démontrent les chiffres de 2022 et de 2023. Si vous regardez en 2022, comme on l'a dit tout à l'heure, la subvention était uniforme. Et donc, plus on consommait, plus on en bénéficiait. Malheureusement, les clients de la tranche sociale qui n'utilisaient l'électricité que pour les besoins impératifs ne pouvaient pas en tirer le maximum. L'essentiel de la subvention étant pompés par les clients les plus gros consommateurs. Et c'est ce rééquilibrage qui a été effectué pour l'année 2023. Et je vous avais dit la dernière fois de retenir le 1 159 000 159 146 clients. Et je vous pour ces clients en 2023, ces clients n'auront pas de hausse parce que la subvention est restée la même. Et j'invite tous les consommateurs pour leur dire que si leur facture d'électricité à changé pour le même niveau de consommation, à savoir les 150 kWh, ils peuvent revenir à mon bureau. Je les invite à mon bureau pour faire une réclamation parce que c'est cette couche que nous devions protéger. C'est cette couche qui ne doit pas être concernée par le réajustement tarifaire. Les, différents, les différences de caution de subvention entre les tranches démontrent l'attention particulière accordée à la première catégorie, qui a le besoin le plus urgent et d'accompagnement. Cette attention particulière accordée aux couches vulnérables en maintenant la subvention qui leur est accordée en l'État est une illustration indiscutable du choix de son Excellence Monsieur le Président de la République de rester constant dans son option de toujours mettre ces couches vulnérables au centre de ses stratégies. La subvention continuera d'être un levier essentiel pour l'État, sur lequel l'État va continuer de s'appuyer pour accompagner et soutenir les citoyens sénégalais les plus vulnérables dans leur consommation de produits énergétiques. Je voudrais à nouveau insister sur, la, sur le fait que la subvention telle que pratiquée par notre pays démontre la solidarité, que la solidarité n'est pas un slogan, ni simplement une posture symbolique, mais une option qui traduit la sensibilité réelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Enfin, je voudrais souligner que la subvention de l'État continue à être effective et pour toutes les tranches de consommation de Sénélec, seulement pour la rendre pérenne est la plus efficiente. Elle a été réajustée pour mieux refléter la volonté sociale et solidaire du président de la République. Donc, comme vous le voyez, sur, sur, sur, à la répartition uniforme en 2022, nous avons réajusté pour que plus vous consommez, moins vous de la subvention de l'État. Pour finir, je voudrais rappeler que d'énormes progrès ont été réalisés dans le sous-secteur ces dernières années. Rappelons que, donc, vous voyez, ces, ces réajustements donnent en moyenne une hausse de, une variation de 16,62% pour la clientèle basse tout en préservant la couche sociale qui n'est pas concernée. Pour la clientèle industrielle, il y avait une problématique qui a été résolue. Ces clients se plaignaient beaucoup de la prime fixe. C'est pourquoi cette dernière a été maintenue constante. Et donc la, la, la, le réajustement ne concerne qu'en période d'activité avec le changement qui s'y est opéré. Rappelons que Sénélec a réussi le doublement de sa capacité installée, avec une capacité installée en 2012 de 772 MW, correspondant à une puissance disponible de 500 MW. Aujourd'hui, en 2022, nous disposons de, 1000, de plus de 1600 MW. En d'autres termes, nous avons pratiquement doublé, voire triplé la capacité que nous avions trouvée sur place. Et avec un mix énergétique qui tourne autour de 32%, dans lequel bouquet nous avons du solaire, de l'éolien et de l'hydroélectricité. Cette puissance disponible nous a permis de faire face au planning d'entretien des groupes et aux aléas qui peuvent intervenir sans pour autant perturber la disponibilité de l'énergie auprès de notre clientèle. C'est qui explique la, la, la, performance réalisée en termes de temps moyen de coupure de notre client, qui est passé de 39 jours en 2011 à aujourd'hui environ une journée par an de coupure pour la clientèle en 2022. Sur le réseau, au niveau du réseau électrique, nous avons achevé le maillage du territoire national. Aujourd'hui, le réseau de transport couvre l'intégralité du pays. Comme vous le savez, le sud et le sud-est du pays a été très longtemps enclavé électriquement du fait que le réseau interconnecté de Sénélec s'arrêter à Kaolack. Aujourd'hui, nous avons mis en service le poste de Tambacounda. Nous avons mis en service le poste de Kolda. Nous avons mis en service le poste de Ziguinchor. Et bientôt, nous allons mettre en service le poste de Tanaf à Ziguinchor pour consacrer définitivement le désenclavement électrique de la région sud du pays. Ceci, c'est 500 km d'autoroute de l'électricité en Aujourd'hui, nous en sommes à 1753 km d'autoroute de l'électricité en 10 ans, soit 1552 km réalisés entre 2012 et 2022 pour un investissement global de 400 milliards. En termes de villages électrifiés, 1648 localités en 2012 À mai 2022, nous en sommes à 5300, une localité électrifiée. Nous avons réussi tout cela en ce temps si court, sans pour autant disposer de ressources gazières et pétrolières. Nous pouvons nous permettre d'être optimistes quant à l'avenir de notre secteur. Assurément, l'environnement nouveau est beaucoup plus favorable qu'il nous attend nous offre l'opportunité de faire des pas significatifs dans le renforcement d'un secteur performant où l'électricité sera partout et pour tous dans un environnement proche. Chers clients, dans notre marche résolue vers l'accès universel à l'électricité à un horizon qui s'approche, nous avons dû faire face à deux obstacles majeurs qui ont secoué le monde entier. Il de la pandémie de Covid-19 avec ses effets le conflit ukrainien qui encore fait inflation sur le combustible qui a parfois dépassé les 50%. Pour les surmonter, nous avons fait appel incompressible et constante du Sénégal, la solidarité. En tant que communauté, nous restons toujours plus fortes lorsque la solidarité demeure le moteur de notre action. Pour cette raison, les couches les plus vulnérables continueront de mériter une protection spécifique. Ensemble, nous sommes plus résilients, plus forts et prêts à affronter le futur dans la sérénité et l'espoir. Je vous remercie et je reste à votre disposition. mooy li ngeen gisee suñu autorité yi génn wax ci orientation bi nga xam ne moom la son excellence monsieur le président de la république joxe maanaam lu jëm ci wàllu subvention ñu xoolaat nan lañ koy tasaaree ci clients yi nga xam ne ñoo ci bénéficié wu dégg ngeen suñu ministre madame Aïssatou Sophie Gladima génn na wax ci lu tax ñu war a changer nu ñuy subventionné yan secteur lay concerné nan lañ koy defee ak ñan lay concerné kon boog ñun bu ñu génnee nii tey dañu ñëw leeral pour wane nag loolu nan lay demee ci wàllu facture courant yi nga xam ne mooy concerné suñu client yi nga xam ne Mamour wax nga dëgg yéen rëkk a tax ñun ñu nekk yéen rëkk a tax ñuy gé ñuy xëy suba ngoon di sonn loolu nag man en tant que directeur général de Sénélec dama ñëw taxaw pour continuer communication gouvernement boobu pour que client yëpp gën a xam fii ñu jublu ak lii ñuy def lan la ba nii nga xam ne client yaa ñu ko doon jàppale dina témoigner seen satisfaction mu mun a continuer ndaxte service public de l'électricité Sénélec ak client yi ñoo ko bokk ñoo ko moom loolu nag bu ñëwee tey jii nii dañu tolloon fu nga xam ne en 2000 suñu xoolee client wu Senelec yi tey jii nii toll nañ si ñaari million ak ñeenti junni ak juróom-benn ak ak juróom-ñeent yi nga xam ne junni yi nga xam ne ay client lañ mais si loolu nag bu ñu jëlee client yi nga xam ne ñoom ñooy client yi nekk lu ñuy wax tranche sociale maanaam yi nga xam ne ñoom dañuy soxla courant uniquement pour seen dund uniquement pour seen jàngu doom ñooñu toll nañ ci million ak junne ak juróom fukk ak juróom-ñeent ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn client yi nga xam ne moom lañuy wax tranche sociale tranche boobu nag président daf ñu wax lu leer daf na ñooñu seen facture warul yokk benn dërëm moo tax bu ngeen xoolee ni ñuy defaatee ajustement bi client yooyu bu ñu maintenir seen consommation yi ñu amoon seen facture du si changer dara moo tax ma leen di ñaan ñooñu nga xam ne ñu ngi si tranche sociale bi képp ku ci gis sa facture changé te yaa ngi si même niveau de consommation bi ñaan naa la nga ñëw sama bureau dinaa ko ubbi fi ak application bi nga ñëw taxaw ne DG sama facture bi kat maa ngi nii ci 150 kilowattheures yi changé na lu tax président wax ñu ne nañu conseil nañu protéger ñooñu ndaxte dañu seetlu ne bu ñu xoolee subvention bi ni ñu ko doon ñoo ñooñu seen facture mu ngi toll ci ñetti junne état bi lu mu leen doon versel ci subvention juróom-ñetti téeméer la ak à peu juróomi téeméer ñu xool ne clients yi nga xam ne ñoo gën a am doole ñoom mën nañ dem sax ba l'état ba état bi versel leen lu toll ci lu ëpp fanweeri junne donc ñu ne loolu nag il faut ñu changer waat ko ndaxte subvention bi ñu ko moom war ñu ko war a moom ak ñu ko yellool mooy ñu nga xam ne ñoo gën a néew doole loolu mooy exercice bi nga xam ne moom lañ defaat pour continuer di protéger ñi nga xam ne ñoo mën a am ñoo ñoo néew doole wàññil si ñi nga xam ne ñoo gën a am doole ñoo gën a am possibilité fay loolu nag suñ ko defee c'est parce que dañuy xam ne Sénégal si lu bokk si suñu valeur yu gën a mag mooy solidarité solidarité nag fu ñu ko déggee mooy ñu jéem a fexe ba def ay mécanismes yoo xam ne ak dispositifs yoo xam ne toujours dañuy protéger ñu gën a néew doole et état bi continuer aussi di jàppale ñëpp parce que lu may rappeler mooy subvention bi kenn dindiwu ko dañu wàññi si ñu gën a am doole pour maintenir ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole mais état bi mu ngi continuer di subventionner ñëpp d'ailleurs président wax nañu ne nañ def étude pour xool nan lañ koy gën a mën a changer ba nga xam ne dinañ dem ci yeneen pays nuñ koy defee maanaam dañuy cibler une couche boo xam ne moom du bokk ak ñeneen ñi tarif dañuy am tarif social am tarif normal ku nekk ci tarif social bi xëj na mun nañ dem sax ba ko ñu ko yenn dëkk yi defee ñooñu duñu fay courant dañ leen di jox gratuitement courant ndaxte ñooñu comme nu ma ko waxee sànq courant bi dañ koy soxla pour seen jàngu doom courant bi dañ koy soxla pour garder li nga xam ne mënul ñàkk si seen kër uute naag ñi nga xam ne dañuy jël courant di ko utiliser pour confort maanaam pour seen nekkaay comme nu ma ko ñeneen yu waxee loolu nag ku ci nekk ça veut dire que am nga loo xamante ne nii mun nga ko fay et donc étude bu ñuy def dina dem ba foofu noonu nga xam ne léegi dañuy génnee ñaar ñi ñëpp détaché leen dootuñ bokk même grille loolu ñu ngi si te bu soobee yàlla dinañ ko continuer kon donc mécanisme de solidarité boobu ñu def moo ñu permettre tey jii nii ñu mun a yegg si fii ba déterminer beneen grille bi nga xam ne lu bees la lu may fàttali rek mooy que ni yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndaxte gis nañ Senelec fu mu jógee woon en 2012 ak fu mu yegg si léegi nii tey am nañ production bu doy aujourd'hui fexe nañ ba nga xam ne courant bi lu ñuy wax autoroute électricité yi wër na Sénégal yëpp gis ngeen bërki démb kii nañ bu tam poste Tambacounda bi mettre nañ ko en service mettre nañ en service poste Kolda mettre nañ en service poste Ziguinchor léegi tey ñu mettre en service poste Tanaf donc ça veut dire que autorités yi wër nañ Sénégal yépp loolu dinañu permettre ñu gën a mun a gaaw pour yóbbu électricité yi ci dëkk ak dëkkaat yi loolu moo tax sax bu ngeen ko xoolee en mille cent 1648 localités kese lañ amoon yu am courant tey jii nii à mai 2022 ñu ngi ci 5308 ci wàllu autoroute de l'électricité yokku nañ 1552 kilomètres avec investissement boo xam ne dem na ci 400 milliards loolu yëpp nag suñ ko mënee c'est parce que état moo ñu jàppale état moo ñu pousse mais surtout client Sénélec yi ñoo ñu def confiance ñoom ñooy fay seen facture ñoom ñoo ñu accompagner pour lii nga xam ne muy mission service public de l'électricité ñun ñoo ko bokk ñu mun a continuer. lii am nag dañu jàkkoonteel lag lu ñuy wax Covid ak guerre Ukraine bi ndaxte ñëpp gis nañ nu prix carburant yu yokkee ci àdduna bi yëpp moo tax nag ñun ñu toogaat ci suñu biir xalaat ci ndigalu président ne au lieu ñuy répercuter yëpp mun nañ développer benn mécanisme de solidarité boo xam ne du am impact si clients yi nga xam ne nii ñoom ñooy gën a soxla courant bi mais dinañu permettre programme yi nga xam ne moom la ñu am surtout muy accès universel à l'horizon 2025 ñu mun si yegg fi ak gaz bi ak pétrole bi di ñëw nga xam ne su boobaa inflation bii ñu sonal si wàllu produits pétroliers yi dootuñu ko am ndaxte day fekk lii ñu soxla pour dawal suñuy centrale pour dawal group yi mi ngi fii si biir Sénégal lañ koy jógee loolu moo tax ñu développé mécanisme bi te yaakaar ne dinañ gën a continuer suñu compagnonnage ak suñu accompagnement avec les clients de Sénélec yi nga xam ne ñu ngi leen di ànd ak ñoom ñu leen di sant di leen gërëm donc maa ngi seen disposition pour question yi jërëjëf. Merci